Idrissa Seck daal dina xaatim charte d'engagement bi nga xam ni coalition nappkat yi nekk ci Sénégal ñoom ñoo ko taxawala boobu la charte nappkat yi fas yéene nañ ko jébbal képp koo xam ni candidat nga ci élection présidentielle yi di ñëw. bu fekkente ne dogalu yàlla tàbbi ba réew mi tege ci suñu loxo lii ñu signé ak yéen tey du ngeen ko réew incha allah boobu boobule charte ñu tënk ko ci juróom-ñetti poñ yu am solo def nañ ci ay solution yoo xam ne mooy mën a tax ñu suqali secteur napp gi. ku wax charte pour une pêche durable nag wane ne kon pêche bi am na jafe-jafe bu mu am ba durabilité bi dafa dafa doy waar fi mu nekk nii. donc la loolu moo tax coalition bi taxaw ne nañu liggéeyaat géej gi ba géej gi bu baaxee Sénégalais yi des seen dëkk bokk ci développement liggéey ñu ne la mooy vision coalition national mooy une pêche durable et apaisée gérée d'une manière transparente et inclusive au bénéfice des populations sénégalaises à l'horizon 2030. comme ni ko yeneen candidat yi nga xam ne ñoom ñoo ko wuti defee patron bu réew mi fas yéene na sàmmonteeg engagement yi mu jël bés bu ñu ko tabbee mu nekk njiitu réew mu jaare fa xamle secteur secteuru napp gi am na place bu am solo lool ci li nga xam ne moo di programme am. ku déglu exposé bii suñu frère Ablaye Ndiaye def ko. te ay acteurs booloo jël initiative gëstu bind ñëwuma fi rek pour signer pour bëgg lu leen neex ba loola dal xel ma xam ni lu manu la loo xam ni du lu ñuy diggaate mais lu ñu mën def la ma soog ne d'accord dinaa ñëw. gannaaw signature bi sa Seck dem na gisanteeg liggéeykat yi nekk ci quai de pêche bu Ouakam. foofu sax la daal di tàmbali li nga xam ne moo di campagne am bi ñeel élection présidentielle